chers internautes jàmm dal jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook la tribune yëglekaay yi mi del ci coowal fond force covid 19 ji nga xamante di ba léegi si kenn xamul fan la mujjee gannaaw bañ ci épinglé yenn ci ay kilifa yëglekaay bi nga xam ne ba léegi si suñuy milliards mënuñ ko génnee laa la wax teg ko ci table bi sàcc nañ ko lekk nañ ko rees na kenn xamul ba léegi si fan la xaalis ba mujjee en tout cas di la fay xaalis bi lii ba léegi nguurug Sénégal waxoon ñu ci dara et pourtant procureur moom ci boppam moo xamle woon ni ak lu ci mënti xew dinañ rendre compte nag askan bi bàyyi furaas daani xëddeem ba jamono ji may wax ak yéen askan bi xamul dara laa wax ci suite enquête yi les éco yéni kay moom desuwaat ci dialogue national bi waxtaan ya fay am fi mu nii nga xam ne ay féewaloo sax commencé naa juddu ci ay xalaat en li jëm ci assemblée nationale moom xamal ne léegi fukki député ak ñett ñoo la war a parrainer wala téeméer ak ñaar fukki président exécutif locaux daal lay parrainer lii mooy mën a tax ñu accepter sa candidature source a moom def taxaw seetlu ci blocus bi nga xamante ni mu ngi ci buntu kër Ousmane Sonko ay takk der dell njiital Pastef mënta dugg kenn mënu koo seeti jëlekaay bi en li waral lii yépp na weesuwul verdict bi nga xamante ni teg nañ ko ci ndodd Ousmane Sonko te waral li ni mel nag lépp yéenekaay bi deesuwaat na ci dañu xamal ni moom juge bi ci boppam am ci waxtu sàngam ci lañ déterminé nag bindu bii comme ça mu officiel moo tax décision bi fi mu toll nii dafa tardé yéenekaay bi dañu xamal en tout cas Ousmane Sonko na délai laa la wax pour def appel ndax amagul ba léegi si am na ci biir tribunal ba kayit guy dëggal condamnation bii ba léegi juge bi bindagu ko bu dee nag lu jëm ci appel yi nga xamante ni Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr def nañ ko li wér teewul moo kenn mënu ko koo càmbar décision bii juge bi bindagul badaaxal pour fësal ko yéenekaay bi daw ba ca dialogue politique ba te ñuy xamal ne fi mu nii nag coow la fa nekk mooy coowal candidature président Macky Sall mandat bii commencé naa indi féewaloo ci biir waxtaan wa ndax bu fekkee ne opposition ba fa teew bëgguñu sax dégg waxi troisième candidature président Macky société civile bi moom la ñuy moo dañu xaar conseil constitutionnel daal di lii la waa Benno ñu daal di a set wecci l'observateur ubbi ci xët bu yaatu ci dialogue politique gi nga xamante ni fi mu toll nii laa la wax coowal candidature Khalifa Sall Karim Wade ba ci président Macky Sall moo indi juwaloo ci xalaat fi mu nii ca biir waxtaan wa ndax bu fekkee ne opposition bi jàpp nañ ne dafa jarul sax débat Macky Sall moo mënul bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm majorité bi moom la mu jàpp moo di dañoo war a bàyyi conseil constitutionnel mu a set wecc mën a bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm waaye yéenekaay bi xamal nañu ne Benno Bokk Yaakaar teg nañ fa ab condition bi tax na Ousmane Sonko mii du bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm en du mën a bokk ci grâce présidentielle yi waa PDS nag moom yeneen condition la jël teg ci table bi ne bu ko accepté wul ñu daal du mooy dialogue politique bi le regard yéenekaay ne en ak ak yelleefu doomi aadama yi ñuy bàyyi xel ñu bëri ci biir réew mi jàpp nañu ne nguur gi ci ay caaxaan la ñu nekk laa la wax respecté wu ñu àq ak yelleefu doomi aadama léefa yéen kaay moom def taxaw seetlu ci F24 ak seen dialogue du peuple bi nga xamante ni tàmbali nañ ko ak ay ponk nag yoo xamante ni moom lañ bëgg a waxtaanee bëgg nag le 23 bi ñu jëm askan bi ñëpp bokk toog benn place ndax bëgg nañu amal ab manifestation bu rëy la 14 bi ñu jëm seen objectif nag moo di ñu a gaawee détenu politique ni ñoo ngi koy teg moom président Macky Sall daal di du mooy nag coowal troisième mandat bi lii rek dong lañ jàpp ne ñoom waa F24 mën naa indiwaat jàmm ci biir réew mi yëmuñ ci loolu ñoom waa f ndaxte la ñuy jël léegi ñooy rax force de l'ordre yi waaye waxuñ ci de nekk di wax ay waxu force occulte lii daf leen di gën a tardeel bi li ñu bëgg xam moo di ñii di rayaate yor seeni fetal ñu leen di gis te ñu nekk ay nervi ñu lijjanti seeni dossier jàpp leen lii moo ñu gën a ñor ñoom waa F24 yemuñ foofu de pare nañu laa la pour dem ci kuréel yu nekk ci àdduna bi yépp ngir mën a jaaba joobe na nguurug Sénégal gii ci jëy ak fitna gi muy teg ci askanam <laughs> non réew mi nag muy soog a neex na jàmm yàgg ci biir réew mi ñeen nag jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah jamono ji ñu toll nii nag am wiir jafe na lool ku nekk ak la muy jàmbat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 pharmacie Al Maktoum solution bi fii la fekk baax pharmacie Al Maktoum ay produits disponible na partout Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk ci Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane jokkoo leen ak El Bachir numéro bi di plus bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne ak Barcelone jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro téléphone am di plus 28 yéen ñi nekkee ci Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indil nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al ndax ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al